tout est produit pour savoir se vendre dans la vie daanaa jàngale dama naan wax élèves yi seen diplôme ben n'importe la am xam ban la mooy mën a fëgg ci bunt ñu ne la entrée waaye li la fay téye loolu yow la sa compétence là, ce, ce taxawaay la ce, ce, ce, ce, ce, sa capacité à être un acteur de la cité de la société le fait nga nekk ci jàmm ak nit ñi am relationnel bu baax ak ñoom di mën a exprimer bu baax di mën a présenté say produit bu baax produit bi lu muy jag-jag-jag day ànd ak marketing buñ ko jaayul dem kon yéen ñi nga xam ne tey ñi ngi master ñi ngi leneen am na lu am solo il faut toujours se pas se link avec l'entreprise important dañ leen fii jël pendant un an renouvelable jox leen indemnisation boo xam ne yéen ñëpp bu ngeen demoon ci structure yi war a tàmbali loolu ngeen naroon am kon xam ngeen ni jox nañ leen gëdd bi ñu leen war a jox te loolu nag ay réaménagement la ñu def ci suñu ressource interne pour mën a def loolu maanaam ay ressources lañu waroon dem feneen ñu ne nañ ko réorienter ci lii kon da ñun dana am lu manqué feneen waaye jaral ngeen ñu ko kon nag loolu contrat boobu nga xam ne tey dañ ko fi teg muy contrat moral entre ñu ak yéen dañoo bëgg ngeen joxe exemple ne c'est possible parce que loolu mooy dooleel ña ca des moo leen di may fit xëy na ñu def lu raw li ñu def te loolu am na solo parce que tey ku ne ci yéen boo tàmbalee liggéey yaa ngi xalaat sa rak wala sa cousin wala sa keneen boo xam ne yéen boo quartier bi te liggéeyul lu dëgg te parfois mu am ay formation la preuve la preuve mooy vous êtes sélection nag sélection la ñu def amul par parlo man Dakar laa nekk di maire plateau amul benn doomu plateau bu fi nekk am am déet dégg naa nag ñu ne Dakar lañ boo xaw ma fi mais parce que ay doomi Sénégal yoo xam ne état du Sénégal moo leen formé la ñu ne lañ leen jox seen chance donc ñu ubbi benn recrutement avec des critères précis ci li ma dégg ñu wax ma ñi nekk salle bi amul kenn ku génn formation avec une mention inférieure